société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen may seen revue de presse dal na jàmm ñu ànd xëy yër yéen i kaay ñu xëyando yéen i kaay gi di réew mi quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu kër gi di pos ma ngi dee ndànk-ndànk mën na la gis nga kër gi nga xam ne mooy jafe-jafe yi nga xamante ni moom la nekk maara day taali na la poso amatul benn xaalis bu ñu sukkandikoo ci xalim ak Assane nee na poste bii nga xamante ni maanaam na loola waaye nag jamono ji li nga xam ne mooy yàq poste moom lañ na Abdoulaye Bibi ni ki démb ginnaaw conseil des bi la ko njiitu mi di président Macky Sall daal di xamle ci ab communiqué gi na Mouhamadou Diayti mi nekkoon impôt domaine moo ko daal wuutu ca kër googe nga xam ne jafe-jafey neen la neen la neen la di poste yéen kaay gi nag ba ñu daal di fay Ibrahima Sarr mi nga xam ne jiite kuréel gi ëmb liggéeykat yi nekk poste nee na délinquance financière bi nga xam ne moo am poste maara day taali mën a lay gis nga yàqu xaalis gi nga xam ne moo nekk poste lu jéggi dayo la économiste bi nga xam ne mooy Mor Gasama moom nag daat nay wax ne poste daal mën la gis nga jafe-jafe yi nga xamante ni moom la ama béetul kenn béetul kenn ndax yow personnel politique bi nga xam ne moo fees dell fi nga xam ne mooy poste ak yàqu goo xamante ni maara day taali loolee wërte bett kenn mi nga xam ne moo nekkoon PCA bu Air Sénégal nañ ko fa fal ku tudd Mamadou Sassal Diop mi nga xam ne ci armée bi la nekkoon yéen kaay gi di enquête nee na Macky Sall yëngal na armée bi mën na la gis nga Macky Sall démb signé na ay décret yu bare bare bari Souleymane Kandé jamono ji moo jiite armée de terre yéen kaay gi di libération nee na général Maître mi nga xam ne dafa waroon a dem retraite ci weeru décembre bii ñu jëma waaye nag Macky Sall daf koo daal di yokkal ba juróomi fan ci weeru avril atum 2024 moom général jamono ji ñoo ngi cay jafe-jafe yu métte métte métte nee ma pétrolier yu Sénégal yi ndax nag la nga xamante ni moo ko waral mën na la état bu Sénégal moo leen amee lu toll ci trois cent soixante-quinze milliards la leen état bu Sénégal moo tax ñu nekk si jafe-jafe waaye yokk ci guerre bi nga xam ne moo am ca diwaanu Ukraine yéen kay gi di Sud Quotidien nee na ngir nag lu jëm ci wàllum dund gi nga xamante ni yokk na ba maara di tale Macky Sall no na nee na nag li nga xam ne mooy souveraineté alimentaire moom la bëgg ci réew mi mën ne la daar daar ñu moom sunu bopp ci lépp loo xam ne moom la ñuy dundee yéen a kaay gii di vox populi nee na nag ñi nga xam ne ñuy waajuru élèves yi mën na la mer ba maara day taale mën na la parents d'élèves dee ndax nag li nga xamante ni moo ko waral mën na la fourniture yoo xamante na ba maara day taale mën na la inscription boo xamante dafa daal di ba maara day taale inscription scolaire yi mën na la gis nga nii nga xam ne moo ko yokkee loolee ci boppam tegewul fenn yéen a kaay gii na nag ci mbiri aji saar waaye nag maître Khoureyssi Ba mi nga xam ne mooy ab avocat am ci réew mi quotidien daat na koy weddi ba tëdd sa naaj wa bi di libération nag bu ñu waxantee dëgg bu ñu waxantee dëgg mën na la gis nga dossier aji saar bi ak Ousmane Sonko dossier bi point mort la nekk mën na la mbir mi demul cëng dikkul mbay laara yéen kaay gi di 24 heures xëy di ñu xibaar naan ñu mbootaay gi nga xam ne moomu syndicat yi nekk ci wàllu wér gi yaram yoo xam ne moom la ñu amal ni di Sud Quotidien xëy di ñu gis taw yi nga xamante ni taw na ko ci nawet bi tax na nag jamono ji yoon yu baree bari na la gis nga tali yu baree baree bari dafa yàqu ba maara day tale mën na la tali yu bari ay pax la def ndox mi nekk sa fu ci mel ni Petit Mbaaw Fass Mbaaw Kër Massar ci Ndakaaru bëri na ci yoon yoo xam ne ma na la kenn mënu faa jaar yéene kaay gi di Libération nee na Abdoulaye Dione mi nga xam ne agent administratif la de la santé nekk na njiitul collectif pour la défense de l'hôpital Dantec jamono ci mandat nañ ko dépôt ndax lan moom Abdoulaye Dione moom nag ginnaaw kàddu na ko ci général Moussa Fall ak police loolee moo tax ñu teg ko loxo mandat que dépôt yéen kaay gi nag nee na ku ñuy wax Ndongo Diop ko tamit Pastef la bokk ma ngi cib garde à vue ab live boo xamante ni daf na ko daal di nag attaqué procureur loolee moo tax ñu garde à vue sûreté urbaine yéen kaay gi di Rewmi Quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu scandale bu mag a mag la ñu àtti démb ca tribunalum Dakar ndax nag gis nga dafa am ñaari responsable yu bokk APR Benno Bokk Yaakaar yu dëkk sa wuru suke na la gis nga ñaari responsable yii benn xale bu jigéen moo leen filmer ñu ne daal di dungu ndax ñaari responsable yii dañoo bokkoonub gela waaye na xale bu jigéen bee leen gën a ës ndax nag ki nga xam ne nag mooy responsable bi sant ba kookee da doon jokkoo xale bu jigéen bi appel vidéo si meeku ba seet wecc xale bu jigéen bi filmer ko keneen ki nga xam xamante ni responsable APR la benn bokk yaakaar démbale kookee tamit même xale bu jigéen bi da doon ànd ñoom ñaar doon siim seen mara ñaañi ci benn hôtel la xale bu jigéen bi filmer ko mën na la gis nga ñaari responsable APR yii ca wuru suge ñoo ngi ci jafe-jafe mbir mi mujjee yóbbu fa mbaxane doonee benn ndax nag dañu leen doon chantage xale bu jigéen bi moo leen doon chantage waaye nag xale bu jigéen bi dafa rafet ba maara détaillé ki nga xam ne moo sant ba kookee xale bu jigéen bi cinq cent mille la ko laaj ki nga xam ne moo sant démbale kookee xale bu jigéen bi laaj ko lu toll ci six millions waaye nag ñaari responsable APR yi ca wuru suge dañoo lànk bañ a nag sédee ci chantage bi ñu loon doon chanté waaye nag ñu daal di porte plainte xale bu jigéen boobee ak magam bi nga xam ne complice la si mbir mi mandat nañu leen dépôt atte nañu leen tëj nañ leen si ñaari weeri kaso